fu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat ci Almunawir Média di am mbégte di leen ziar bu baax a baax ñu ngi fii nga xamante ni moom moo nekk ci Njaasaan eh, ci loolu rek ñu fas yéene ànd ak yéen ci li nga xamante ni moom moo nekk gàmmu gi ci loolu nag ñu ngi fii ci kër Baye Sidi eh, moom tamit incha allahu rabbi eh, mu war ñoo waxtaanal ci li nga xamante ni moom moo nekk gàmmu gi ak li nga xamante ni moom moo nekk tamit lii di Ndiassane waaye dañuy jox kàddu gi sëñ Mouhamed mu nuyoo euh, su ko defee rek incha allahu rabbi mu am loo xamante ni ñu ko dikkal waxtaanal ñu ko ci li nga xamante ni moom moo nekk gàmmuk Ndiassane sëñ Mouhamed ñu ngi lay nuyu. aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. kenn ku nekk si turam ak santam ak daraja jo yàlla defal muy darajay doomu aadama ginnaaw <coughs> loolu ñoo ngi fii si kipaaru sëñ Bassirou Kounta bu sëñ Ahmadou Kounta bu sëñ Abdourahmane Kounta bu cheikh bu Mohamed bi sant Ndiassane bu cheikh Abi Naamatul Kounta yi du maami Kounta yi yëpp ñu ñëw nag teew si bis boo xam ni bis bu màgg la di bisu gàmmu di bisu ngénte kan lañu ngenté yent bi sallallahu alaihi wasallam sallam ki nga xamanteni bi mu feñé mbollem lu sila caaxaan yàlla raaf na ko bis bobu sila la Kisra dari toj si la Faris dari gemme sila rabbi la ak bukki dajé dari fonenté fi la dabé jinax dar koy akolat bis boobu nag lañuy màggal kon nga xam ni borom bi subhanahu wa taala ginnaaw ba mu terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te indeegu ko fii nga xam ni ba dara nekkagul dara leeram rek moo nekkoon borom bi subhanahu wa taala dara nekk dara si leeram gi la jël def dara mu doon dara kon kooku su fekkee juddu na ñu koy màggal war na nañoo xoolit ñu ko màggal yëpp warees na koo màggal mboolem kuy jullit war na la waaye nag suñ ngénte moom am nañu koy moom ndax ngénte kenn du ko def doomu jàmbur moo tax kunte yi rawatina gën gaa siiwee si Njaasaan ñu koy ngénte mooy bisu gàmmu su delsee ñu ngénte ngénte loolu li nga xam ne nag mooy solos gàmmu doyoon na si yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu juddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne moo ko njëkk a nettali ji abu lahab da abu jahlin nekkoon ab jaam da koo gareel kon lii feeñ mooy juddu bi yonent bi sallallahu alayhi wa day goreel mboolem koo xam te ne nekkul woon gor kon bis boo xam ni ki juddu day goreele bis boo war nañ jar a màggal ndax bis bu doomu aadama di goree bis bu jar di màggal lay doom beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu juddoo nga xam ni li yàlla borom bi subhaanahu wa taala feeñal si ay kéemtaanam te yonent bu ne judd na waaye juddoowul noonu yoon xale bu juddu si niñ ko mën a waxee bi mu ay tànkam la commencé di tudd borom subhanahu wa taala la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di imnu national bi nga xamanteni mom lañ suñu mam yu baax yi bàyyil fii qadriya moy nga xamni moy salatu tasbih bo bëggee def salatu tasbih tasbihat yoy ngay wax ak takbirat yoy ak ahlalaat ngay wax si biir salaatu tasbixa googu kon moom la ñu transféré suñ jàngkat yi def ko hymne national bu xaadiriya muy subhaanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah akbar kon bis bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee di ab xale di ab liir bu njëkk wax lool si adduna loolu jaroon na màggal képp bu fekk loon nekkul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon moom nekkul woon di gën gi mbindeef jaroon nay màggal beneen bi mooy ki nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala daf ko wax ne wa innaka la ala xuluqin azim xool naa ba xool la maay mbindeef yëpp yow yaay gis gën a kaweeg jikko loolu ko borom bi subhanahu wa taala jox kado boobu noonu nga xam mom la ko jox ndax moy kado bi gëna reuy ci si borom bi subhanahu wa taala jox loolu dong jaron na même bu màggalu juddi gi magal daya joj nga xam borom bi subhanahu wa taala jox nako moy kado bu mag kon kado yu ñi la benen bi moy mom limu wax ci bopom man dama ñëw pour nek kado si yéen yàlla ni ko dama laa yónni rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga nekk yërmande adduna bi képp waaye ki nekk yërmande adduna bi képp bis bi mu juddoo ndax jar na màgg lañ jot a màggal beneen bi mooy si lii indi firnde si ak dëgëral ak solos gàmmu mooy yonent bi sallallahu na def bis bis la ko daan def ayu bis bu ne daan na woor bisub altine ndax bu ñu ko woolaaj mu ni si laa juddoo si bisub altine si laa juddoo si lañ ma yónnee même si la di génne àdduna kon juddoom moom yonent bi sallallahu màggal na ko ak lu wax ji bari bari bari ak lu weddi bari bari bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam màggal na bisub juddoom yonent bi nag indi wuñ ko woon si àdduna pour muy organiser di màggal bisub bisub bi juddoom dañ ko indi woon pour muy defaraat jikko yi ba nit ñi mën a taataan lu baax mën a xam lu baax mën a xelli lu baax ba ñoom seen bopp même bu leen ko dictéwul même bu leen fekkee moom joxañ rek la leen def ñoom ñu mën a taxawal te yonent sallallahu alayhi wasallam da daan joxañi bi mu deme ba nga xamanteni mo ngi taggo dafa waxon ni balliqu wala aya da ngeen ma jottali donte aya la kon amna lo xamni xam wuko kon li nga xamanteni te wuko jottaliwu bu ñu wax ni yonent sallallahu alayhi wasallam defé wuko won ni wala yonent bi gisuñu won sahaba yi ñu def ko ni wala gisuñu won tabi'an yi ñu def ko ni wala ayma a'immatul arba'i defu ñuko won ñu ne kon lool waré su koo def bokul ci diine dedet diine ji kenn ku ne da ngay ñëw def li nga wara def ndax man nañu wax ni imam malik ni sëñ Baye Sidi Kunta mii di def si jaamu yàlla li mu ni mu koy defee noonu la ko Imaam Malik doon defee déedéet mën naa mën naa ute Imaam Malik mën na ko ëpp leneen lu mu ko def mën na ko ëpp xam-xam mën na ko ëpp leneen waaye moom man naa am mu ëppee ko benn côté bu mu defee te Imaam Malik defewul noonu kon bu ñu wax ni lool mu ko ëppee di ko def ngir jaamu yàlla bu ñu wax ni loolu bokk si diine ah kay si diine lay bokk waaye nag ñoo wax ni eh, eh, Imaam Saafi deful woon nii deful nii kon yow mi koy def te imam Safi deful na ko bu fekkoon lu baax la imam Safi doon na ko def loolu déedéet ndax imam Safi du lépp lu baax rek mënoon na koo def kon am na yéen yéen ñu ko rëcc yoo xam ni keneen mën naa judd si ginnaawam def ko te bu ñu fàtte ni ñoom ñoom taabi'an lañu ñenn ñi dañoo nekk saxaaba dañoo fekkoon yonent bi sallallahu alayhi mu wax ñu def waaye ñun nag déedéet ñoo fekk yoon bi sallallahu alayhi wa sallam jaal fi ba dem lu yàgg te biñ ñëwee dañ koo topp te ñoom sax li leen si fekkoon ñun fekkuñu si woon fekkon na ci ñoom ay dóorantey jaasi ay arwan ju wacc du xuppee ay nangam nang ñun nak dañu fekk lepp teew ñu def ko business ñoo mënuñoo gamu mënu ñuy wax di gamu mënu ñuy wax solos gamu ba pare yow nga bu ko wedd rek si ay diw def ko woon def ko xam nga ben way dafa wax lo am solo ta xorom dafa wax ben way mu ne ko arwan de yonent sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni ci ben hadith ni ma ngi leen fi baye ñaar su ngeen ko topé du ngeen reel muy arxuraan ci ak sama wakani mooy muy si Sidé ki moromam mboolem Kunta di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi xadis bu lool loolu dañuy alquran ak sama sunna waaye ki ko doon am borom xam-xam bi doon wax dañu ko waa léegi alquran ji d'accord téere baa ngi nii sunna si mooy ala sunna sunna mo ala jëmmi sunna mu ne ko sunna da nga koy fekk si saxiixu Buxaari yu ak saxiixu Muslim mu ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu la dénkoon sunna ndax yonent daa dénkoon Buxaari yu sunna ndax da koo dénkoon da koo dénkoon muslim déedéet ñoom nag dañoo jàngatoon xam-xam mu ni ko kon surtout yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam dañoo jàngat xam-xam jàngat sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yar yar ña leen yar ñooñu ñooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nit di def mbir mu nekk sunna moo tax da ngay dégg ñu naa sunna taabi'an la wala sunna saxaaba kon ñoom du tee ñi nga xam te ne dañoo jëlee si ñoom raataan si ñoom dinañ def mbir moo xam ne sunna lay doon sunna mooy loo xam te ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko fekkee waxu sax mu noppi sax baa mu def ko baa mu jikkowoo ko léegi nag bu fekkee moom defu ko waxu ko waaye jikkowoo na ko ndax lu baax la kooku sunna la te bu ñu fàtte ni yonent bi sallallahu alayhi nee na képp koo xam ne sos nga mbir mu baax sos nga ab sos bu baax léegi da nga see am fay ak fay ko ko def waaye boo sosee sos gu bon da ngay am si fay lu bon loolu ak ku ko def si bon loolu kon bu ñu sosee mbir mu baax te fekk sax du sos ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam na woor bi kon su fekkee dañoo dajaloo ñun sëti yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ngénte loolu day bari na ay kéem bari na ay njariñ ñoo xam te ni moo ko làmbool te man koo layal si xam-xam man koo layal si alquran man koo layal si sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy li ñuy wax ni yàlla borom bi subhanahu wa dafa wax ni bu ngeen dee tudd yàlla bu ngeen tuddee yàlla téeméer si boo demee si wasaaya yonent bi sallallahu alayhi di nga ko si fekk yonent bi ni su fekkee ni ngi def ay laa ilaha illallah yu bari yàlla dina leen jéggal seeni baakaar yi nga xam ne doon tele dafa toll ni jabalu uxut ñu ne téeméer la wax lim wala ab lim lim boobu noonu ñu laaj ko ndax su ko ëppee mu ni su ngeen ko ëppalee yonent bi sallallahu alayhi yàlla borom bi subhanahu wa taala moo leen gën moo leen daa xafay kon ndax dañoo ñëw njaasaan rek ñëpp toog dañoo ñew njaasaan pour nit ñi di di sàbbal borom bi subhanahu wa taala dañoo ñew njaasaan di def ay tasbihat dañoo ñew njaasaan pour di julli si yonte bi sallallahu alayhi wasallam te buñ ñew woon sax loolu lepp hayna mu ne su ko baña def ndax bis bu ne julli bi mo ngay def waaye suñ ñëwoon kep ñu xool kanamu Baye Sidi gi sëñ Baye Sidi mu xol ñu kanamam gi ñaanal ñu kontan si tew gi ñu tew si kanam loolu tiyaba la ndax mu ken mënul wedd ni yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ci hadith de len ziyaarante ci seen biir ndax loolu day tax ngeen ni bëggante te jullit ñi suñ dee bëggante waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu laa xoona na ngeen jàpp su buumu yàlla bu dëgër te bu leen tàqalikoo jàpp su buumu yàlla gi nag li koy defar mooy di seetante yu mel nii kon mënul ñàkk xew-xew ak lu ñu mën a wax ni bin alam mënul ñàkk xew-xew ndax diine da koo sax da da koo saxal xew-xew waaye ni bu ñu wax ni na daan xew si Màkka wala li la daan xew si yonent bi sallallahu alayhi boobu war gileem moo daan am léegi nag bu ñu demee ba war gi lem amatul 4-4 war 4-4 am aka war ay ay ay Ford ak lu xeet yu demee noonu kon boobu la nga xam ni nit ñi nañ daan dundee dundeetuñu noonu donte la nag li fi nekkoon si ay tere ba léegi moo ngi sax li fi nekkoon si ay digal ba léegi moo ngi sax si Alxuraan waaye ñu xam ni gàmmu moom képp koo xam ni yàlla nattoo na la nga bañ ko xam naa ne moom bañ nga yiw goo xam ni néew na si loo koy am ndax ñeent moo si daje ñoo xam te dañuy daje pour wax. wax seen biir nte ci diine moy comme lu melni benen beneen bi mooy togg ñam joxe ak nuyonté delo nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ban biir mo gënal yalla mun tut amu taama wa rad salama joxe ñam ak di delo nuyo kan mo fi ñew tay su suba ak legi nuyu señ baay si tafayu la biñ fi ak legi xéewal yi fi daw lol lepp nit mënu ko dak legi del joxe ñam wa noy joxe da ngay togg ñam joxe ci mbéd mi mbéd mi kenn dekk fi il faut nit ñi ñëw fi nga dëkk nga man leena jox ngam il faut ngay nekk si nit ñi pour di mané délo nuyo kon daj ndajam diiné mënul ñak benen bi moy amna ko xamanteni tay lu mu neew neew neew neew dina dégg ben kàddu bo xamanteni ci borom bi subhanahu wa taala dina ko délo dina ko délo si yalla subhanahu wa taala ta buñu fatte ni arxuaan dafa daan wax ni yantabi sallallahu alayhi wasallam da daan wax ni ngeen jangal nit ñi mo gën ngeen tabahi jàkka jangal nit ki bamu xam diine mo gën nga tabaxal ko jàkka mu dem tabaxi jàkka doon tele li ngay wax xëy na am man nit it mën naa wax loo xam te ni li muy wax moom nekkul sa moom waaye mu wax ko si koo xam te dina nekk si moom ndax loolu day am li yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax fekkoon na ni am na ñu daan teew si kanamam mais nekkul si ñoom bu ñu génnee dañuy laaj lan la yant bi daan wax doon wax sànq mais dem na ba nga xam te ñu bari si ñoom dañoo mujj tuub bu ñu fàtte ne xaalit moom mu ëpp moo gënoon a doy waar si bi muy nekk si yéefar waaye bi mu tuubee moo gën a bokku na si ngeen si sahaba yi kon nit dina nek ci mbir mo xamne jik jik am mbir mu ko dem si gam ñu ni ah bo ñu dajé bu nit ñi dajé xëy na mënuñ safan am kon safan bobu di fa am yow mi dajalé nit ñi yalla fi indi déetul wa dañuy xol safan ba ndax mom la nit ki woote wala lu bax la woote mbir mi aslu bi ngay xol waye do xol li nga xamne moy furo ji furo ken bis si atti mbir mbir boko ko dee atti cosaan la ngay atte ndax mbir dafa haram dañuy xol ciosan li ci lan la wara jogé bu ñu nee sàngara dafa xaraam cosaan lañuy xool cosaanal sàngara mooy sàngara foo ko ne da ngay da màndi kon màndi teef googu noonu la jooju moo tax ñu koy tere waaye lem est-ce que du màndi le lem ah yi day màndi le waaye kenn mënul wax ni lem dafa xaram kon mënuñoo wax ni gàmmu dafa xaram du tiyaaba du nangam déedéet ndax nit ñi dañu fay dajaloo dañuy jaxasoo déedéet mënul ñàkk oto yoog biis yi dañuy jaxasoo te nit mën nay dox kenn ku ne say soxla képp tax ngay dugg si biis yi daal di tacaloo te ba léegi ñoo ngi koy dox loolu ba léegi kenn wax si waaye ñu ni nag dajale pour sant pour gërëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajale pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dafa xaraam dafa nangam ndax nit ñi dañu dal waaye nañ dajaloo ndax loolu la ñu woote dañoo woote pour nit ñi gën a xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo woote pour nit ñi dellu si yàlla subhanahu wa taala dañoo woote pour nit ñi di tudd yàlla subhanahu wa taala loolu nag ku ko dàq si diine xam ma lan mooy des si diine loolu nag la ñu woote fii si Njaasaan nga xam ni borom dëkk bi mi ngi sant dëkk bi c'est alhamdu la ko sant ndax euh, bayam bu baax way juróom bu baax wa bi muy génn àdduna 1840 1880 la sant Ndiassane 1880 dafa naa soo ko calculé alhamdulilahi lay tombeel kon dëkk bi ak cant la tombeel kon ak yeneeni mbir yoo xam te ne xëy na mën naa am suñ baay si moo gën a mën a yaatal waaye alhamdu daal doy na sëkk si Ndiassane alhamdu lañ ko sance turu dëkk beeg sar at yi mu ko kiixee boo ko ëddatee da lay jox alhamdulilahi alhamdulilahi nag lépp lay tegtal mooy tegtal ni bu naan bi mu ñëwee si Sénégal bi muy dem alhamdulilahi la fi bàyyi mooy liggéey bi moo doon mat di mën indi woon si àdduna mat na sëkk kon nag loolu doy na sëkk si ñu teew si si dëkk bi donte la tàllaloo sa loxo si uh, gor yu baax yi donte tàllaloo sa loxo si ñi nga xam ne nag ñooy ay sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo mënu koo dagg boo ko toppee sa la bi kenn ku ne mën ngaa tàppee sa la nag kenn ku ne mën na ko wut mu dem si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kunta moom kenn mënu koo weddi ak foo ko mën a waxee wala boo ko dee weddi weddi takfir nga koy weddi da nga koy weddi pour nag deretu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu koo sakk kon loolu la ñu doon uh, ubbee wala loolu lañ doon wax rek si néew xam lay doon ak si uh, jéem de ndongal daara luy luy kon ñu wax xamee ko noonu xam ni màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu la su mag ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk defal boppam yàlla subhaanahu wa taala defal ko ko kon nañu gën a góorgóorlu ci topp mag ñu baax ñi la ñu gën a góorgóorlu si bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag Alxuraan daf ñu digal ni sant laaju ma leen ak fay si dara lu dul bëgg waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ma asalukum ajran illa al mawaddata fil qurba kon nag nañu gën a bëgg sëti yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit nag bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye damay yaakaar ne dañoo xamul ñan ñooy sëti yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg dëgg dëgg loolu nag suñ ko xoolee Sénégal gi dinañ xam ni bëgg nee nañ bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam trop waaye sëtam yi moom dañ leen a ginnaawal trop te loolu nag bokk na si gàllankoor Sénégal ak Afrique bu ñu gënoon a dellu si bëgg waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa ni kon Afrique dina gën a romb fii mu nekk waxuma Sénégal waxuma fii ñu nekk Sénégal waaye Afrique képp bu ñu gënoon a fonk waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na waaye am na ñu fi bàyyi waa këram yooyu nañ leen gën a fonk yàlla nañu yàlla may ñu fonk leen yàlla nañu yàlla may ñu topp leen allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima eh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yaakaar naa dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni sëñ Mouhamed yëkkati na ko eh, comme ni ñu ko àndeen ak yéen ñu ngi woon fii nga xam ni moom moo nekk eh, ci kër Baye Sidi ànd ak yéen ci li nga xamante ni rek moom moo nekk ngéntewaat Eh, li nga xamante ni moom moo nekk eh, juddug yonent bi sallallahu wa sallam kon ñu ngi leen di sant eh, di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen ànd ak ñun ci Al Mounawir Media jërë ngeen jëf.